wa Momo Dieng nii di yoog a gambi si Gambie waaw wa Momo wa Momo yaa di doog egg ak Gambia yeksina si Gambia Gambia Momo jeng yeksina si na tey du yomb waaw tay la tay la tay la nga dencal Gambia tay Momo mais bari na bari na waaw wel mom la bel mom lang bi gene ba léegi do ñew Gambia Gambia yëpp di la xaar ñu ngi ni ñi do doog egg si bëgg nañu xam tay la nga len ni dencal ah mais bari na xam nga liñ leen denc répertoire bi nga xamante ne moo nekk ci album bi gars yi doon ko xaar xam nga moom lañ feskee ne ñëw jox leen xam nga live bi ba mot sax ànd ak groupe bi yëpp jox leen lépp on lañ leen koy jox xam nga ba ñu doyal bu ñu dawul rek du daw de ah kon baax na kon ci kanam ay ca léegi léegi